mu juddu ci atum 1994 fële ca Bambey séeréer Mohamed Cekom Ngom nekk ab jeune entrepreneur boo xam ni jaal na fu ne laata muy yegg si fu muy yegg si ci ndorteel bi nag yëf yi metti woon na lool ndax jànkonte na ay jafe-jafe yu bëri naam sax monsieur le maire bu nekk ci ngogom daal dina ko jàppale indi na ay njàppaleem jëmale ko ci moom waaye taxul benn yoon mu mën a am résultat bi nga xamante ni moom la daal di bëggoon. metti mais ak en entourage bi ñu entouré ak suñu ambition de pouvoir aider mon motax à ñu agsi fi parce que xam ngeen né Sénégal pour nga c'est c'est tout un problème mais su fekkee tu entouré par une équipe qualifiée et dynamique donc yaakaar naa loo sumb dina di ko daan quoi. comme ni ma ko waxee ci yenn interview yi rek euh, bi ñuy débuté c'était en 2017 euh, man la woon mais dañ naan l'union fait la force Bima ma mes projet bi donc il laa des hommes de confiance à savoir euh, Babacar qui est l'actuel PDG du groupe maintenant donc euh, moom la waxtaanal mu ne ma le projet faisable boobu ñu ngi koy tuddee bés Bambey emploi solidaire parce que Bambay est suñu origine donc nous war faire def programme euh, d'appui donc biñ fi jógee xam nga des fois dañ naan di nga woote dara woote ko ci biir kër mais di nga xam di nga dem ba un certain temps du xaj ci biir kii obligé nga gën ci biti biñ defee six mois de formation intense à Bambey formé ay groupement yu bari bi ñu pare parce que ñun lu ñu gëm mooy ce qu'on appelle la chaîne de valeur duñ la former bàyyi la dañ lay former orienté la insérer la ba nga am ci loo jàpp parce que le programme dafa amoon comme slogan foire formation orientation insertion. bon euh, yàlla dafa dogal Met Abo bu mu nekkee Met Abo ba léegi pratiquement mën naa wax ne. Euh, amul ay partenaire yu bari lepp lu ñuy def dañ ko def fonds propre suñu propre mooy lañ ci investir donc euh, de passage rek mënuma def interview to santuma monsieur le maire de la commune de Ngogom Babacar ex-maire moom mu mu suñu partenaire daal di ñu accompagner ci une somme de 500 francs mille francs joxuñu siège donc à part lui amuñu benn partenaire boo xam ne moom moo ñu accompagner au début bi ñuy démarrer lépp lu fa investir mu nekk accompagnement yu ñuy def mu nekk formation suñu propre moyen la nekk donc liñ fa jànkonteel comme di comme difficulté maanaam entourage des fois il y a des projets mais doo ko mën a mise en place parce que gars yi dañu ci bàyyi quoi da ngay jàng ba pare ñu jàpp ne da nga war toog ci bureau ñun gëmuñu loolu quoi dañu jàpp ne pour pouvoir réussir doo ko defee entre les quatre murs da ngay gën lancer wu dans l'entrepreneuriat donc mu nekkoon lu metti coow li bari woon na booy dañoo dooj ak et cetera mais maintenant tey yaakaar naa Maître Abo jox nañu une raison en disant que jàng bu am say diplôme nekkul forcément tu dois réussir am na ñoo xam ne jànguñu amuñu ay diplôme mais ñu ngi lancé wu ñu ngi gagné leur vie dignement et ñu ngi accompagner beaucoup de gens à savoir les entrepreneurs sénégalais comme Serigne Boub et cetera donc la liste est longue. mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne tax na mu am expérience daal di def ay investissement yu bëri waaye ba léegi taxul mu bëgg a yéeg fu mu yéeg ci noone sax jot na def kemtulay kàttanam ngir am financement jaarale ko ci DER waaye mujjul antu loolu yëpp boo ko boolee mu doon ay jafe-jafe yoo xam ne kii di Mouhamed Cekom Ngom nekk ab jeune entrepreneur daal dina ko jànkoonteel donc liñ fa jànkoonteel comme comme difficulté entourage des fois tu as des projets mais donc on mën a mise en place parce que gars yi dañu ci bàyyi quoi da ngay jambes ba pare ñu jàpp ne da nga war toog si bureau ñun gëmuñu loolu quoi dañoo jàpp ne pour pouvoir réussir doo ko defee entre les quatre mille. da ngay gën lancer dans l'entrepreneuriat. donc mu nekkoon lu metti coow li bari woon boy booy dañoo dooj etc mais maintenant tey yaakaar naa Maître Abo jox nañu une raison en disant que jàng bu am say diplôme nekkul forcément tu dois réussir am na ñoo xam ne jànguñu amuñu ay diplôme mais ñu ngi lancé wu ñu ngi gagné leur vie dignement et ñu ngi beaucoup de gens à savoir les entrepreneurs sénégalais comme Serigne Boub et cetera. ñu ngi ciy sant yàlla parce que certes euh, metabo holding la quand on dit holding mooy loo xam ne yemul ci domaine formation kese am nañ beaucoup de sources de revenus yu nekkul formation kese donc xëy na euh, Medabo school formation moo gën a fës mais am na yeneen sources de revenus yoo xam ne dañ koy def parce que soo xoolee holding metabo euh, branche la mën naa tudd ci ñetti branche li ci mel ni le cabinet Yasmine Consulting bi nga xam ne ci biir Met Abo la juddu bi nga xam ne mu ngi dugal chiffre d'affaires bu am solo ci vente yu muy def xëy na ci ci kanam naa ci gën a addu ak aussi la fondation Met Abo bi nga xam ne objectif moo bu mu am mooy accompagner ñi nga xam ne sont les détenus ou bien ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. déjà des partenaires waa DER wala et cetera ñëw sa siège jël des images dañ la accompagner mais du mujj fenn mais ba tey garaawul quoi parce que li ñu gëm mooy xaaru nit ci dara ñun suñ am nañ suñu am nañ xam-xam kon nañ ne on peut le faire même si ça va durer avec les moyens atteindre quoi mais jot financement ci ONG étatique puis bu mu nekkee xale rawatina bu mu nekkee collège bi nga xamante ne foofu la bàyyee njàng la am idée daal di demal boppam naam sax mooy bëriwuñu expérience bëriwul waaye mu nekk loo xam ni da ko fës ci xelam ngir daal di mëtal yéenam ci noonu la daal di jublu def kem ku lay kàttanam ngir daal di dugg ci piir entrepreneuriat. Euh, man euh, li ma poussé ci entrepreneuriat mooy dama yàgg a ne. Euh, nekul cycle universitaire moo may may li ma parce que comme on dit dama yàgg a bëgg xaalis donc euh, sama njàng sori na wul donc euh, amna diplôme je suis diplôme j'ai mon équipé. j'ai mon BEP e aussi ci en restauration pâtisserie donc à part ça aussi j'ai suivi beaucoup de formations comme en création d'entreprise comme aussi la comptabilité quoi niveau terminal là bas je j'ai pas eu mon bac ci la lancé wu ci domaine formation pratique yi. nak jii nag daal di na ba ab entreprise entreprise bo xamné day yëngatu ci walum formation des jeunes ci walum produit cosmétique local ci walum pâtisserie manam muy daldi former ay jeunes yu bari ci métier yoyu léegi. déjà formé nañu des jeunes jox leen liggéey waaye biñ démé ba mu yàgg ñu japp né kay lu ñuy def waatul yëm au niveau communal ci lañu genn ce qu'on appelle. Euh, dem au niveau régional organiser bootcamp de formation quand on dit bootcamp de formation nous lancer appel d'offres beaucoup d'étudiants jóge founé au Sénégal ni au niveau de pour faire une formation c'était le 24 décembre 2019 mu nekk bootcamp de xam pratiquement c'est le Sénégal en miniature ñëpp ñëw defal formation nous lañ fait nag jàpp ne nag au niveau régional mais niveau national

dañ koy bàyyi 24 heures su ko defee mu concentré ne comme savon de ce fait demee ñu ñëw def ko démoulage dal di gratter une fois nga gratter aussi nga plonge ko ci benn euh, espace boo xam ne en naaj nga sise ko maximum euh, trois heures à cinq heures temps su ko defee nga am sa omo bio donc loolu mooy processus de production bi quoi. jógee foofu beneen activité manam pâtisserie di ci yëngatu pâtisserie nag boobu déggee yaatu na mom moom lépp li nga xamante mo moo undu wàllum pâtisserie sen entreprise bi dañ koy defar waaye tamit da ci former ay jeunes entrepreneurs da ci former tamit ay élèves ay étudiants yu bari yo xamné ñu ngi ñëw fépp ci Sénégal entreprise am nek fële ci Petit Mbao mom Mohamed Cekom Ngom jamono ji mu ngi y ay yenen projet projet yo xamné tamit pot day dogu ci wàllum pâtisserie wàllum produits cosmétiques. immigration irrégulier manam bokki mi nga xamantene mu ngi sonal Sénégal ba tax yu bëri daal di seen jeune entrepreneur bi lu mu xamle rek modini di ngi lancer appel à l'endroit des jeunes ngir ñu daal jël seen avenir ci seen loxo daal di def seen kéemtulaay ngir amal seen yëfu bop parce que ki nga xam à état pour nga mëna kon yaakaar naa soo xaar état da ngay sonn la preuve maintenant université amatul tëj nañ ko donc su fekkee man dama wekk sama aduna ci université est-ce que dinaa réussir donc lancez-vous dans l'entrepreneuriat même avec dix mille francs ça peut se faire